kër Cheikh Mabaabu kër Cheikh Malick lu jëm ci tàngal mi lañ leen joxoon muy kafe ak ataaya ñoom itam ña koy waajal yokk ko tëral nañ seeni waañ yoo xam ne fa lañuy ñuy jële seeni xéewal du ko dugal ci biir penc mi ak ci biir kër gi naka noonu daayira sëñ Moussa Nawel bi ne ci penc mi moom lañ jagleeloon sëriñ Basiiru Jaw jéete ko ñooy toppatoo meew mi ñoom itam lañ koy toppatoo ba di ko joxe daayira bi ñu tuddee soppee Serigne Bassirou Mouhamed Diop jiite ko ak ñi ko àndal ñoom lañ dénkoon ñu war di joxe ndox mi ñi naan ci pénc mi fee soxna yooyu nekk itam soxna maam Issa ma nga fa soxna Assou fa lay nekk fa la soxna yi Baye Fall yi di nekk danañ leen booleek ñoo xam ne soxna maam Issa dana tàngal café dugal fa danañ booleeg ñu leen yóbbul ñam ak ñu leen yóbbulum ndox lii lañ tënkoon keroog ñu ne woon bu ñëwee tey dañ koy waxaat ñëpp dégg ko jëwriñ ju ci amaat xalaat mu yëkkatiwaat ko nu ndax dañuy diisoo rek nu mu gën a yaatoo gën naa rafete gën naa mate rek lan bëgg li nga xam ne rek moom la jiital ci wax ji sëriñ bi yoon yi nga xam ne toog na noog moom ci mbir mi di ci tënk te maag sëñ Yuusu Jóob mii ak sëriñ Moussa la doon woo ak sëñ Mountakha Guèye mii dinu taxawuloo liggéey bi ci biir jóge ci moom moom li doon wax mooy def loowu ci kenn dara daa bëgg rekk li ñuy njëkk a santaane te di ko sàkku mooy teewlu gi teewlu gi ak dal gi ak taatan gi ci xol yi ba mën a jariñoo lim yéene taalibe yi mooy ñu mën a déglu sikrullaa bi ña koy tudd tudd ko mu jëm kaw te dëgër ñëpp ñi fi nekk ñëpp lu waaye gën a mën a dolli sa yar gën koo mën a dolli sa pastéef gën koo mën a dolli sa dal ba mën a ba nga mën a dégg sa karse sëriñ bi mu ne dal googu ak teewlu googu moom lay bëgg ku koy dimbale nga dimbalee ko loolu jiitu loolu jiitu ci loolu dafa nu ko wax jataay bu nekk moo tax tey jii loolu mooy li amoon solo ci li ma waroon wax li ma njëkk a wax lépp dama ko doon jiital waaye jottali kàddu sëriñ bi mooy li ma yitteeloon ci wax ko nu déggandoo ko buñ ko déggee ba noppi fu waaye jëm ku ko mën a jottali koo bokkalum liggéey na nga ko jottali jëwriñ yi da doon naa sekku sàkku seen mbooloo yi bëgg a liggéey si bala ñoo liggéey si ñu dajalewaat ñëpp tënkalaat leen kàddu yi sëñ bii ku gis mbokkum taale bi mu war a liggéey si it nga wax ko ne ko lii la sëñ bi waxoon bu ñëwee ba ci biir liggéey bi it fàtt fàttalante loolu fa yéenee dox ci loolu xam naa ne nag fu àdduna daje moom mu ci cib yëngu du fa mucc ci coow dafa yomb waaye buñ koy bàyyi xel te di ko di ko dénkante di ko soññante bu lépp matutit lu ci bari mën naa dal sëriñ bi daal nee na li ko ci yitteel mooy dal gi ak teewlu gi ba mën a jariñoo lim bëgg nu jariñoo ko ci lim nuy sàkkul mu mel ne ak taali bi moom niñ koy waxee yitte la pasteef la yéeg-yéeg la te lii kon day liggéey boo xam ne lépp ci sëriñ bi la dellu kon yitte ak yéeg-yéeg rek mooy li ci am solo kon nanu ko bàyyi xel bu baax nan ko jot lente nan ko soññeente pénc mi ba fi junniy nit nekkoon bon xalaatee ne ba fi junniy néew nekkoon kenn du baat kon bu fi ay junniy nit nekkee te ñu bàyyi xel noonu it coow mën naa bañ a bari bu kenn ku ne delloosee sa xel ci ne ba doon am néew tëdd fi doo wax doo yëngu te loolu la ñu digal suñu digal suñuy kilifa sëriñ bi sant ne nan ko def nan ko jéem a def suñu kem kàttan loolu rek laa doon bëggoon a soññee tey nan ko waajal liggéey bi képp ku ci am xalaat mën na koo yëkkati lépp luñ ci war a dolliwaat danañ ko ci dolliwaat kon loolu lañ doon ubbee di ko tàmbalee noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. ñu bëgg nag presse bi fii ñëw bépp na nga xam ne dafa am aw yoon wu ñuy jaar du fa la neex rek laaje waaye du loolu taxut a yëf yee jóg kon nañ fexe ba tënku ci ku ñëw fii dem ca fa ñuy laaje kàddu nga jóg fa sa sa mikoro dégg la ñuy wax nga mën koo jot li waaye bu romb benn waaye ci mbedd mi rek moom xamul lu xew nga laaj ko mu wax ba ne xaaw loolu itam sëñ bi nee na mi ngi ñaan mboolem ku fi ñëw te yor presse na nga bàyyi xel loolu loolu mooy ndigal li jërë ngeen jëf. Allah

ilaha illallah la ilaha illallah la la إلا الله jërëjëf jërëjëf ñu ñaanal lu baax seen femme suñu mbiru benn sama borom yàggal ko wéral ko ba li bëgg seen tool lépp mu def ko ni ko soobee ak wetu ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ maam Cheikh Fall mii moom sëñ Assane muy sëñ maam Cheikh Sikurula ni nga ko waxee déggee nañ ko ni sëñ bi itam soññ na ci maanaam ñu bokk tuyal yëpp mi nga xam ne moo jiite am Sikurula yëpp di suñu kilifa. day leeral sëñ bi ne ko noonu mu ko waxee noonu mu ko waxee woon waxee ko ñëpp wax gën ko wax itam coox li defee ko noonu waxoon naa nag ke ba may wax loo ne koo xamante ne Cheikh Rafal mu sëñ Tuubaa woo di ko liggéey loowu ku ne yaa war a yëg na nga fay demee ndax Cheikh Rafal am na melo ci lu jëmee sëñ Tuubaa ku fay jëm leeralul ba xam meloo bëgg mu mel ni nga loolu waxoon lu mu ko mën a wax ak nu mën a mel den fexe ba sëñ bëgg am naka jekk loolu lañ doon loolu la def kon na sëñ bi ñu xamal ko ni mboolem ñu fi teew di kuréel yi ñëpp kenn ku ci ne ban xamee ne mooy sant lu Seex Faal léegi nekk sa biir xol bi ba nga ko déggee nga tàmbalee sant gi ci noonu ko mënee ak noo jàpp ne boo ko defee rek loola jag yaa ngi ca loola nii nga ko waxee noonu mooy dal gi sëñ bi bëgg ak bëgg ñëpp teewloo ko kii tudd yàlla mu ko teewlu dama tax ñu ko def su ci loolu lépp amutoon tey bëgg sëñ bi loolu dong la ñu war ñun ñun xàmmewul naan ma penko nga ne sawoo nga nii da nga naan lii sëñ bëgg loolu lañ ma sa xam ci loolu la dafa tolloog ne nag bu sëñ bi waxee ba wax lu mel noonu na wax leen suñ dikkee mel nii moom bu ñu génnee kenn warut a wax la ngay wax da nga koy wax fi da ko sëñ bi wax loo rek mu jeex li nga wax la mooy wax leen la wax mooy ni sëñ bëgg dañ ko def incha allah